te ku ne xam na ne Aminata Touré pour la liberté de la presse kër gi fu mu amee problème Aminata Touré sol na dàllam ñëw fi presse bu fi am problème ñëw na dafa gëm liberté d'expression gëm liberté de la presse mm-hmm. mais nag am na ay accusations yoo xamante ni parce que avant d'être des hommes politiques nous sommes des pères et de famille mm-hmm. qu'est-ce qui s'est passé Aminata Touré def na ministre ministère de la justice déggoo benn yoon ñu ni def na fa dara Aminata Touré a été premier ministre déggoo benn yoon ñu ni def na fa dara pourtant c'est institution yoo xamante ni muy ministère muy primature day ay audit interne yuy am tout le temps foofu mosoo fa dégg ñu la def na fa mu dem conseil économique social environnemental ma lay xamal en passant que conseil économique HCCT Sénat assemblée national institution la yoo xamante ni depuis 1960 kenn mosu fa audite depuis 1960 amul benn président assemblée wala présidente conseil économique wala bu HCCT wala bu SANA buñ mës a audité Aminata Touré a été la première bu ñu ñëw di ko audité bi ñu koy audité c'était en mille 2020 sénégalais yëguñu ko sax moom xam na ko man nii xam naa ko maa ngi doon dem ci télé je ne l'ai parce que li mu jàpp mooy reddition des comptes kooku activité normale la ci administration mm-hmm. bien que nag bu ñu toogee xamoon nañ ni lii normalul parce que quand quelque chose sort de l'ordinaire su amee dañu xam suñuy position politique à l'intérieur de la l'APR mooy madame Aminata Touré elle teg contre le troisième mandat pour une fois ñu ñëw di auditer ba pare jël timing am ba mu fa def jëluñu parce que Aminata Tall def na fa deux mandats bi ñëwee audité wu ñu Aminata Tall yàlla def Mimi Touré bi mu ñëwee moom di mu njëkk def balaa muy commencer dafa def audit de la de la gestion précédente jël ko jébbal ko président Macky Sall loolu kenn waxu ci ñu ñëw audité bi ñu audité ba pare moom en tant que présidente d' institution les fonctionnaires yi fa nekkoon ñi audité xam nga lu ñu def recommandation à madame Aminata Touré mu tontu leen maanaam du dañ ne ko da ngaa détourner un franc xam nga nag tey bu ab journal titre Aminata Touré épinglé xam nga tey bu ñu ñëwee di def fii tey audit. Mm-hmm. mais man nañoo xool ni y toujours des choses yu ñu mën a améliorer man nga koo gis sax ci archive mën nga koo gis ci administration mën nga koo gis ci leen amul. Mhm. franc boo xamante ni dañ ñu Aminata Touré da ko détourné ça n'existe pas parce que loolu bu amoon ci jamono boobu parce que mooy li yàlla def bu jamono boobu bu amoon Aminata Touré heure bi mi ngi ci kaso bi c'est-à-dire que l'audit comme kenn mus ko def dañ ko defoon pour moom pour jéem a seet lu ñu ko mën a taqale pour yóbbu ko ci justice tëj ko comme ni ñu doon tëjee les opposants la preuve national bu ko mandat bu ko sénégalais yi jox dañ ko foqati di dem bay foqati sa mandat député d'une manière antidémocratique lu musta am kooku bu la boo yoree audit boo xamante ni moo ko commandité ci lu musta am bu amee lu mu lay taqal taqal la ko c'est pourquoi Aminata Touré a dit une certaine ba pare boole ci daan ni la koo xamante ni bind nga loo xamante ni ci daram la moom da lay porter du lu mu parce que ku gëm ma président Aminata Touré ku gëm liberté la réew mi aussi nañ xam lan. Ah, no du mën. Euh, menace yi ñu koy wax non loolu du Issa je pense que ni tey yow journaliste nga mais tey yow tey bu ñu xëyoon suba léegi benn journaliste bind ci yow loo xamante ni bi du foofu du tur du du mbubu journaliste bi mbubu père de famille bi la mbubu mbubu papa bi la mbubu yaay bi la et puis beneen bi ci des dama ne la dafa am coup Aminata Touré tey yow xam nga. ligne boobu mu yor lan la ko coûté yor une ligne bu wér contre troisième mandat moo tax mu yor mu nekk la première personne à être auditée au sein du conseil économique yor cette ligne la moo tax mu campagne toute une campagne ñu ne ko assemblée nationale doo fa toog yor cette ligne la moo tax moom ak président Macky Sall ñu def nii maintenant nag bu fekkee tey dañu toog ba tey loo xamante ni 2020 la xam nga am na ay moment wax nga ma ko sànq hmm. yëkkati woon nañ ko fi mu def sorti rapport IGE ñu ne deux milliards cent. Euh, deux milliards cent trente six millions cinq cent quarante huit. Euh, mooy mooy mooy li ma la wax. est-ce que du rapport boobu Pape Omar Gueye euh, ak i naataangoom jiite woon doon def audit bi te ñu génne ko wax ne deux milliards yooyu le destination inconnue la. maanaam fa mu dugg ñoom xamuñu ko. xam est-ce que du lool la ñuy sukkandikuwaat tax ñu génnewaat. l'information moom laa la wax ma ni la kii kii xam nga yow li nga wax ab journal moo ko bind. xam nga tey fii dafa am ay institution yoo xamante ni ñoo ñu def tey jii ay audit bi ñu koy def am na lu leen tax a jub bi ñu koy def ñu ngi set ku sàcc ak ku sàccul yow jaaxalu la li fi am lépp ci audit ak li fi am lépp ci scandale ci jamono yii passé yépp c'est dix ans la yow comme ni ko Pape waxe léegi régime bu bees di soog a toog les principaux opposants yi nga xamante ni tey ñoom ñoo yor régime bi bi ñu dee wax malversation yi fi daan am dañ la daan wax petro dañ la daan wax Covid dañ la daan wax COUD mais tey comme ni nga ko waxee ñu ni Aminata Touré quand même ci loo xamante ni yëkkati woon nañ ko fi mais man damay ñaan en son nom. Mhm. su fekkee daa am lenn lu ñu koy reproché. Mhm. ñu yóbbu ko tribunal. à ton avis c'est à quelle fin kon dans ce cas mais Aminata Touré nag compte pas que des amis au niveau de la scène politique benn. quand elle lutte contre parce que ñu ko ñu ngi yow ñi ngay wax ni ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko doon xeex mooy la mouvance présidentielle d'alors. waa benn bokk yaakaar nekkatuñu fa. non foofu la non kaay wax la benn affaire. Macky le combat que Aminata Touré a mené benn contre le troisième mandat mais beneen bi ci des Aminata Touré ne compte pas aussi des amis ci ñi bëggoon report ak ñi bëggul report et ça c'est des sujets qui vont venir peut man je suis un acteur politique averti. xam naa ni elle a porté le combat du contre le report comme comme mooy moment bi mu koy bi muy porté le combat du report c'était avant la coalition Diomaye après avec la coalition Diomaye mais boobu tey le président Diomaye fay le premier ministre Ousmane Sonko bul fàtte ni ñoom bi ñuy génn ci kaso boobu ñu ngi ci biir campagne. Mm-hmm. quand il y combat contre le report boo xamante ni ay hommes politique ay hommes politiques de premier plan. bokkoon nañ ci ñi doon travailler d'une manière souterraine à ce que ñuy def report mais Aminata Touré pourtant dañ ko recalé j'étais son mandataire au niveau di conseil j'ai démontré à la face du monde nan la ñu sàcce sama ay parrainage notamment à Saint-Louis mais tey bi ñu demee ba ñu xam ni que Macky Sall li mu bëgg mooy defate ay deal pour dàq élection yi mu am ñu ngi ci collaborer pour def ko Aminata Touré à fait face comme elle continuera à faire face parce que gis nga bu fekkee da nga da nga da xam gestion état yàgg ci tey fii may wax ak yow ma nga États-Unis bokk ci seize experts au monde yu ñu choisir pour ñu tëggaat administration bi wër monde bi kooku du xam-xam kese kooku éthique la kooku moral la foofu sax d'habitude doo fa dégg ay politique mhm. moom c'est une politique comme ni mu ko revendiquer c'est une politique mhm. boo xamante ni aussi dafa am dose éthique morale boo xamante ni reconnue au Sénégal et à l'international. Ouais. donc loolu moo tax. d'accord Issa wax léegi. Mhm. ko du woon menace. d'accord c'est-à-dire que alors si je comprends bien ce raisonnement ça veut que yow euh, le pouvoir d'alors l'actuelle opposition pour yow ba léegi ñoom ñooy manœuvrer ci ginnaaw pour. di ternir l'image euh, de la présidente Aminata Touré. bañ ñu def ma ko du ma ko def kenn. c'est-à-dire que du ma wax lu ma xamul. parce que lii dañu nekk ci société boo xamante ni société de communication la. société boo xamante ni tey communication mooy réguler monde bi su fekkee dañu wax benn wax yow waxuloo ci wala masamba waxoo ci sax danañ la woo ne la kaay wax ci te bu dee nit nga bul tuutal mukk lu ñu lay jéem a taqal parce que man fierté bi ma am ak liberté de ton bi ma am pour toog ci plateau télé di wax c'est parce que je suis avec madame Aminata Touré te su ma àndul woon ak ku noonu du ma dem ci plateau yi parce que man du ma man je suis de famille du ma toog ci télé Aminata Touré jaralu ma la wax man la man dànd fàlla d'accord wii ma bàyyil ma terminer foofu. Aminata Touré jaraluma toog ci plateau di défendre l'indéfendable je suis fier d'être avec elle parce que aussi elle me ma yor sama dignité ak sama conviction di toog ci plateau tele di wax ni lii ñuy wax nii tey ba nga koy defendre fii mm. dama ni amul régime amul juge amul procureur amul magistrat bu ci mën a indil Aminata Touré problème. d'accord Issa. oui dafa am loo xam ne dañ ko wax sànq maa ngi la koy wax ci recommandation yu nga xam ne euh, waa IGE. Mhm. selon euh, lu ay euh, journaux bindoon dañ def ay recommandation ci. koppar yooyu li nga xam ne moom la doon wax mu toll ci presque deux milliards nee nga du du ay kii mais recommandation la ñu bari épinglé la ñuy bind bon xam nañ jeu de mots bi des fois mais par rapport ak li ñuy wax dañ leen ko wax gis nañ madame Aminata Touré mu sulli fonds force ci defoon donc ak accusation pour accusation est-ce que finalement lépp waruñu ko teg ci table ji muy li ñuy accuser force fond force Covid ak rapport cour des comptes yi nga xam ne génnagul IGE ak lii ñuy accuser euh, la présidente Aminata Touré. teg lépp ci table ji. li ci war a bon bonne question bonne question xam nga yow yaa nga naan benn journal bu bind. gis nga journal boobu bi muy bind rapport amul. rapport amul. yow journaliste nga non xaaral ma ñëw yow rek journaliste nga. Hmm. yow da ngay xam sax lu génnagul. ci say investigation souvent nga man ma toog suivre la am ay affaires yu may jël ci yow wala Pape Moussa mii mu génneel ma mais dama ne moment bi ñuy génnee loolu. Hmm. boobu rapport amul. Ah. boobu rapport génnul fenn nga xam ni lan dafa am nit bu génnee information jox ko journaliste bi ko neex mu génnee ko bindee ko ni mu ko neex mais vous pensez que pour des personnalités sérieuses. mais journaliste aussi source-am rek lay fiyewu rek. sa source mën na la tromper parfois. waaw mais foofu mais aussi dama tey un rapport dañ koy déclassifier. dañ koy génne. Mhm. rapport boo xamante ni kenn déclassifié wu kenn génnewu ko. Aminata Touré li tax moom mu man cee wax man ma man cee wax parce que daf ko concerné moom personnellement. Mhm. ma xam li ci nekk lépp. ba pare moom en son temps moom madame Aminata Touré. mu wax ci lam ci doon wax mais li ma bëgg a wax foofu. mooy bi ñu ko xam Aminata Touré qu'est-ce qu'elle avait demandé ñëwal daf ni nañu génne rapport yi audité waale ñu non ña fa jote jaar yëpp ak et puis ñu def ko publiquement hmm. c'est ce qu'elle avait demandé parce que nag euh, moi j'ai été avec elle au niveau du conseil économique social environnemental je ne trahirai jamais ay secret d'État wala lu ma xam mhm. mais je sais qu'elle s'est comportée ca lam fa fekk ci ay facilités yoo xamante ni ñam fa fekk ña ko fa daan jiitu dañu ko fa daan am moom elle a elle n'a pas accepté ces facilités la elle n'a Aminata ture ñëwul ci administration pour wut alal ñëwul ci administration te lu mu bokk da ciy def li mu man coalition Diomaye bii tey jii bi mu ciy bokk ku ne gis na ni dafa yanu mbir mi li lim ci war a def mu def ko ba mu ñëwee dafa jël programme am teg ñu boole ñaari programme yi liggéey ci ba mu ñëwee dafa génne ay moyens de soutien ay moyens boppam soutenir la coalition ba ñu jugee di dox dafa wër Sénégal ku mu xam ci Sénégal ngay responsable Mimi 2024 moom moo jël xaalisam jox la nga campagneel ko ba mu àndeek aussi la coalition ba ci essence boppam moo koy def li mu war a def lépp moo ko def te ba mu paree aussi tey jii nii jobaay mi président Diomaye Aminata Touré day xar tànku tubéyam pour mu réussir. parce que mhm. daf ko jàppale. maintenant nag. nga daanale maintenant foofu lay daanale maintenant am na ci loo xamante ni ak ku mu mën a àndal ak loo mën mënti doon ak loo mën a tekki bu dee da nga bëgg a nasaxal démocratie wala la ngeen tënkoon nga bëgg koo dindi la ngeen waxoon ak sénégalais wala moom la mu waxoon ak yi nga bëgg koo dindi loo yuuxul audit yuuxul loo xam taxawaay bi mu war a am lay am te yàlla nga ko ci dimbali. taxawaay yooyu xeex bu mu ci def gagné na ko. d' accord alors euh, gis nañ ne aussi euh, def nañu déjà transition bi euh, déclassifier les rapports de cour euh, de des corps de donc est ce que mën nañoo wax ne d' ici quelques mois on s'achemine benn feuilleton judiciaire ne est ce que dina nekk en faveur de de bu ñu fi nemmeekoon dëgg jamono début Macky Sall avec CREI yi est ce que moom la ñu nar a dundaat jamono ji. pas du tout pas du tout xam nga feuilleton judiciaire.